Yun. Chair Kaza. Mamadou jaay merci beaucoup na la yàlla bindal tiyaaba yàgg Béri Diallo ak ñëpp ñoo xam ne liggéey nañ fi rek yàlla na ko yàlla fi yiw amiin amiin amiin yàgg di ko teewe at yu bëri barki yonent bi sallallahu alayhi liggéey am na solo waaye liggéeyal sa borom liggéey sa bopp dara ëpp solo yàlla kese moo leen mën a fay